jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi live Dakar 221 si jàngat gi ba tey rek ànd ak mbirum Ousmane Sonko ak ay jafe-jafe yoo xamante ne si ne rek ba jon yàlla tey mu ngi koy dund moom kooku di président Ousmane Sonko fi ñu toll nii kenn mënu laa wax ndax kooku di président Ousmane Sonko dina bokk si élection yi ñu dëgmal wala du si bokk mais ñi gëm loole nekk moo di ñi nga xamante ne si ne ñoo bokk ñoom parti ñoom def ko seen candidat ñuy ay patriote sympathisant ñoom ba tey jinnu yàlla tey ji ñoom jàpp nañ na rek seen candidat moo di président Ousmane Sonko lii ñuul si soo mi nag mën nañ na démb rek la daati xaw muy foofee rek sa cour suprême ginnaaw atte ba siis Sabassy Faye doon atte ñëwaatoon dos ko doon attewaat foofee rek sa cour suprême ginnaaw rek cour suprême ba mu attewaatee loole nag dafa rek mujjee kase li nga xamante ne seen rek moo di boobile dossier wax na rek das ko yóbbuwaat foofee sa tribunal bu Ndakaaru ñu daal di koy attewaat loolu nag li si tey xelu nit ñi moo di rek kenn xam na ne rek jamono jii rek li des si wàllum parrainage bi mën na ne deux semaines rek wala ay fan yu néew moo si des ñu collecté loolu la faas si wàllum parrainage yi ndax li des si diggante parrainage bi ak app bi nga xamante ne si ne war na ska def rek si wàllum attewaat boobee si président Ousmane Sonko dira boobu est ce que du fekk wàllum parrainage bi euh, jeex loolu nag bu fekkante nee na jeex na est ce que ausman Sonko dina am sens sa ba tey rek di bokk si élection yu ñu dëgmal ak lu mën a amit euh, ñu bokk si waa Pastef patriotisme patisaay askan wi ña ngay xaar si waa Pastef ndax ñoom it duñ am pala bee nga am yaakaar ne wala dañuy continuer rek di ngoy si ki nga xamante ne si rek moom moo di président Ousmane Sonko ñu def ko seen candidat élection 2024 ndax nag euh, plan B ñu si bëri bëri ñoo ngi koy ruumanaat si suuf ne instant bi jot na nag ñu jéem a wat ni nga xamante ne si moo di plan B wala rek ba tey dañuy sukkandiku rek ni ñooy rek si président Ousmane Sonko mu nekk seen candidat élection 2024 defal ma si commentaire yi libéré Ousmane Sonko.